waaw mbégte rek mbégte rek dinaa comme ñoom jiitu ñooñ foofu ñun dañuy jàngat si moom rek comme exemple rek si ñoom ndax ñun buñ demee quoi te parce que dañuy ñaan yàlla ëllëg tamit ñun ñu mel ni comme ñoom du ñëw fii du jouer fii ak amical ak suñuy gars ñun tamit ñu dem di ñëw comme ñoom incha allah en tant que meilleur défenseur tey waaw en tant que défenseur loolu moom je suis content bu baax quoi parce comme si yow mu wax ñëpp loolu la ñu wax quoi comme lu ñëpp wax rek loolu laa jàpp waaw je suis content lan la ñu mun a xaar si grand défenseur ah déwén moom objectif bi du fii moom waaw waaw objectif bi du fii moom ah maa yàlla lépp si mbir loxo yàlla daal la si loxo suñu borom la nekk bu ko defee ma gérer mooy géwaat mais bu ko defee daal ma dem damay dem mais objectif bi du fii daal. amoon déception ci defet bi ngeen xam ne jël ngeen ko waaw waaw am nañ déception trop mais mbirum football moo yéeme quoi parce que équipe bu dëgg la équipe bu ndaw la équipe bu ndaw comme maa ngi la am mu koy waxee rek équipe bu ndaw amul. mais xam nga lu war a mun a am la rek am na ba pare quoi dañuy concentré aussi leneen incha allah merci.